boo Samba Sylla xam-xamam dafa màcc ci wàllu koom mu bokk fondation Rosa Luxembourg monsieur Sylla ñu lay nuyu. maa ngi lay fay ngoone. Euh, dellu nuyu la sax laay wax ñoo déggandoo kon euh, classement bi ci wàllu FMI rapport bi mu mujjee génne Sénégal euh, fi mu ci tollu réew yi gën a ndóol foofee la ñu ko dugal jàng nga ko ndax ponk yi ñu sukkandiku ba dugal ñu foofu loo ci wax. lu may wax d'abord rek mooy que ni Sénégal moom dëkk bu ndóol la xam nañ ko. mais nag classement bi euh, base scientifique yu ñu ko defee moom moo doy waar daal parce que xam nga ñuy xaw a gëstu si koom-koom souvent dañ naan ñun Afrique. pour mesurer suñu suñu alal dafa dafa jafe léegi pays boo jël tamit am na nu mu koy mesurer te loolu nu mu koy mesurer bokkul ba tax ni nga bëgg a jël pays yëpp nga ràngale leen ne kii moo gën a ndóolat ba fee loolu ñu ñi ci gëstu ci koom-koom rafetlu wu ñu ko daal soo xoolee rapport bi dañ ne FMI la mais benn kuréel bu tudd Global Finance moo sukkandiku ci ay données wu FMI pour ne Sénégal ne pas vingt-cinquième mais vingt-neuvième place la nekk te soo xoolee données yi moo appuyé wu Euh, données yu 2015 la alors que 2015 jotagul donc ay prévision la mais soo xoolee rek soo jëloon banque mondiale classement bu bu différent lay jox nga jëloon yenn institutions yi tamit classement bu différent lay def man tey suba xool naa classement yëpp en fonction institution bu ko produire résultat bu différent la soo méthode bi ngay utiliser tamit résultat bu différent bu lay jox. mais ci ñoom seen méthode 935 dollars par habitant loolu moo ñu may xëy na ñu euh, dugg ci place boobu et puis en terme de production de richesse gis nañ ni tam Sénégal demeewul noonu. waaw xam nga richesse soo koy mesurer da ngay xam nan nga koy mesurer économiste yi ñoom leen soxal mooy li ñuy woowee euh, production. croissance su production mooy ça veut soo fekkee par exemple wax nga am nga ñaari orange c'est pas parce que sa prix orange yi gën a yokk rek que am nga xaalis bés boo amoon ñetti orange seen na nga am nga xaalis mais ni ñu koy mesurer nii ak taux de change yi nekk en vigueur loolu économistes yi duñ koy utiliser pour natt euh, ba xam richesse am na ou pas lu ñu mën a wax rek mooy que ni euh, Sénégal depuis 2012 quand même am na croissance bi fi am kenn mënul wax ni Sénégal dellu na ginnaaw côté PIB par habitant nu ñu ko mën a mesurer loolu nañ ko wax lu ñu mën a wax tamit mooy que euh, soo gisee ñi naan vingt-cinquième la ak Sénégal dellu na ginnaaw loolu waxu politicien la lu tax loolu parce que soo xoolee Sénégal depuis 2000 dañ ko classé ci pays les moins avancés pays les moins avancés mooy ñu gën a ndóol ñu gën a tardé ci àdduna Afrique 34 euh, ñoo ci am fanweer ak ñeent ñoom ñoo ci am léegi soo xoolee Sénégal ci la bokk léegi ba tax ni rek quel que soit classement bu ñu mën a wax ne Sénégal am na ko li ñuy jàpp rek mooy Sénégal dafa pauvre rapport bi moom wane wanewul lu bees mais base scientifique yu mu yu mu yu mu yu liggéey moom baaxul li gars yi di coow ñi ngi na tam moo fi ba tax na xëy na ñu des ba tey ci réew yu ndóol yi yokkute am na tuuti mais nag euh, fu ñu jógee dafa sori trop te lii ñëw tamit dafa dafa dafa metti ba tax ni yokkute googu ñu bëri yëguñu ko loolu am na tamit soo xoolee lu ñu waroon wax mooy que Sénégal actuellement sénégalais moyen bi moo gën a pauvre sénégalais wu 1960 cest à ba ñu am suñu indépendance niveau économique bu ñu amoon dañ ko perte ba léegi dabaguñu ko. loolu mooy problème bi c'est-à-dire que Sénégal développement bi ñu wax noonu amu fi dañuy jugo ko daanu rek jugo ko daanu jugo ko daanu loolu mooy problème bi loolu la ñu a wax mais rapport boobu waxuñu ko commentaire yi fi am tamit waxuñu loolu. ci wàllu gouvernement bi ñoom bokk na ci seen ay argument par exemple bourse sécurité sociale yi ñu indi wala xëy na wàllu couverture ak yooyu pour jàppale askan wi mais euh, ñu demee ne ay kuréel ñu mën a nangu loolu ki da nga koy won ko loolu ci wàllu croissance. soo xoolee FMI ak banque mondiale ak ñeen boobu ñu amee suñu indépendance ba léegi ñoom ñoo ñu te seen conseil yooyu soo xoolee indiwuñu croissance indiwuñu yokkute indiwuñu développement ñooñu soo xoolee amul benn dëkk boo xam ne nag mës nañu ànd ak ñoom dëkk boobu développé cest à lu ñu soxla mooy ñun ñu xaatal suñu bopp. ut tamit suñu modèle bopp mais nag luy xew mooy suñu gouvernement yi bés bu leen institution yi waxee ni ah liggéey ngeen bu baax ñu wane ko fépp bés bu institution yi waxee ni liggéeyuñu bu baax rek ñu bëgg na bu wala di indi yenn argument lu ñu soxla dëggantaan mooy ñun ñu réfléchir suñu bopp am nañ fi expertise locale am nañ ñoo xam ne tamit vraiment nañu proposer leneen loo xam ne mën a jël fi ñu nekk nii yóbbu ñu ñu jëm kanam loolu mën na nekk. laaj euh, ku deful noonu mosoo développé loolu la soxla fit soo xoolee fi ni système yi nekk dañu ay système politique yoo xam ne permettre développement parce que ku ñëw ñu fal la da bëgg tout suite am dara loo ko wane comme ça ñu mën la falaat mais li nga yàkkamti noonu moo tax doo mën a jël politique yoo xam ne moom mooy indi développement bi à long terme loolu mooy suñu nattu moo tax soo xoolee Sénégal dëkkum démocratie la ñu wax mais suñu démocratie indi lu ñu yokkute. Euh, mais ci wàllu ci wàllu euh, ndóol bu ñu ci dellusee yaa ngi naan bu ñu xoolee euh, sénégalais bu kon temps indépendance ak léegi est-ce loolu du doon ak dellu ginnaaw parce que indépendance ak léegi yàgg na quand dellu ginnaaw bu métti la dellu ginnaaw bu métti la xam nga loolu li koy firndeel mooy xam nga ñu ngi naan plan Sénégal émergent mm-hmm. président bi yàlla su ko jàppale woon mu atteindre objectif am mooy 7 pour cent yi mu bëgg fii ak 2035 soo defee calcul bi. 2035 na mais suppose loolu dëgg la loolu dëgg la mais pour wax la nu ñu retardé rek imaginel que yàlla jàppale ko mu am loolu mu bëgg 7 pour cent yooyu. soo ko xoolee nga calculer nga ne bu 2035 yàlla jàppale président mu am lu mu bëgg fan la ñu toll da gis ne du ñu atteindre sax émergence niveau malaa ngay am suñu continuer 2035 soo continuer ba 2050 ak même hypothèse yi ba niveau la ñuy am niveau Colombie te ñoom ñaar ñëpp kenn du si pays émergent c'est-à-dire que li ñu soxla mooy leneen ñu réfléchir suñu bopp xalaatal suñu bopp indi yeneen façon modèle économique ñu gëm suñu bopp jéem a avancer mais tant que ñu ngi référé ci li xew feneen wala conseil ñee ñi rek dëkk bi du jëm kanam. Euh, lan la kon ci réewu Afrique yi yaa ngi naan 34 yi ci réew yu ndóol yi problème vision dirigeant yi la wala fit bi moo des ni nga ko waxee euh, quest qui pose encore nga temps yi ñu ngi doon waxtaanee ci li loolu moo des. c'est-à-dire que ñun gëmuñu suñu bopp gëm sa bopp mooy lan soo xoolee américains ba ñu jëlee seen indépendance dañ ne ñun de dañoo bëgg indépendance ci kii ci britannique yi donc ñu créé suñu école américaine développer suñu économie américaine Allemagne noonu lañ def France noonu lañ def asiatique yi boo ñëwee dañ ne ah, ñu de am nañ suñu valeur noonu lañ def pour jéem a mais ñun fii Afrique système yi am dañuy def tout rek pour continuer rek tax ni rek pour ñu jóg dafay metti te comme ni mu la ko waxee souvent koo fal dafay bëgg tout de suite tout de suite am dara comme ça ñu mën ko falaat te précipitation boobu moo tax duñu choisir les bons projets duñu am dal gi wax pour que dëkk bi mën a jëm kanam. des dox gi des. waaw rapport bi amul base scientifique mais nag dëkk bi tamit dafa ndóol moom. Mm-hmm. ngërëm la bu baax ndongo Samba Sylla ngay économiste bokk ci fondation Rosa Luxembourg la ci leeral yooyu nga indi kon ci wàllu koom pour suñu téléspectateur jërëjëf oui ci wàllu xibaar